asalaamaaleykum suñu mbokk internet yu Sénégal 9 TV dal leen si actu du jour ginnaaw bañ leen di yoo safoo tiitaroo si and bi ngeen di ànd ak Sénégal 9 TV mu leen di jox actualité nationale ak internationale bi en temps réel dañ koy tàmbali ak inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ginnaaw tiis bu metti bi dal si kaw fondateur directeur général bu SET Actu muy wuyoo si turu Ismaïla Ndoye ñu gën ko xam si Izo moo daal di ñàkk soxnaam tey ginnaaw 4 mois de mariage soxnaam bi di wuyu ci soxna Fatou Gueye daal dina wuyu ji boromam tey mercredi 12 vingt 2024 waa Sénégal 9 TV di bokk tiis bi ak boroom këram bi di ndooy Ndoye rawatina di jaale ñii di waa Médina nga xam ne soxna si foofu la daan yeewoo ñu ñaanal Izo yal na ko yàlla may xolu muñ di ñaanal soxnaam bi fi jóge di Fatou Gueye yal na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana yal na suuf woyof si kawam di leen ñaan ngeen wéy di abonné si suñu seen YouTube Sénégal TV di ngeen am actualité nationale ak ah, internationale en Sénégal 9 TV mooy suñu télé.